asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci télé bu mag bii di bàyyikoo ci biir jumaay Tuubaa ji MK TV noo leen di nuyu di leen siyaar di leen balaaq yéen ñëpp dellusiwaat nañu ak yéen ci jataay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee woon mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ay jataay yoo xam ne dañ koo toppoon ci càlla la di ci waxtaan jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci faram fàcce ñu tàmbalee woon ko ci ak gan ak jamonoom ba jataayu tey bi incha allahu taala mooy ñaar fukkeelu jataay bi ñu ngi tolloon ci bind bu mujj ba mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugge woon biir madinatul munawwara ñu nettali woon xadas ba xew-xew ba nam demee woon ak état bi nga xam ne jaar na fa yépp bi mu jugee màkkatal mukarrama jëm si madinatul munawwara ak ñi mu àndaloon ba ni mu jugee madinatul munawwara ak situation bi ni mu demee woon foofu nam jaare xubaa nam jaare ci Banu Najjaar ba ni mu wàccee ca kër Abu ay al Ansaari yi nga xam ne daa waxoon ne gileem gi fu mu yës rek foofa la ko yàlla digal ne foofu mooy nekk ab ak sancam foofu mooy nekk këram borom bi dogal Seydina Abu Ayyub al Ansaari mu baax moom nga xam ne ci waa ansaar la mu am taw tawféexi doon dëkkandoo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca a munawara nettali woon naa ci bind boobu nam wàcc kër abu ayuba ak lenn ci xew-xew yi nga xam ne am na fa ci kër abu ayub ayubal ansaar yi woon naa it baaxuk ak woyefuk ak cofeeluk ak mbégteem abu ayub al ansaari ci gan gi nga xam ne mooy gën gi gan gën gi mbindéef gi wàcc këram ci bind bu mujj ba tey nag dañuy ñëw di àggale rek xew-xew yu njëkk yi nga xam ne moo xew a munawara daanaka siira moom li ëpp ci waxtaan wi mooy madinatu munawara gazawaat yëpp madinatu munawara la woon mooy xare yi saraya yëpp madinatu munawara la rasaa'il yi mu doon bind madinatul a la li ëpp ci xew ci xew-xew yi lu ci bari ca madinatul munawwara la xewe woon moo tax état bu madina moom danañ ci indi ay yaatal yu bare bare bare bare bi mu agsee ci dëkk bii di ma madina it waxoon naa ci ma taarixul madina jëmi madinatul munawwara wax naa ci wax naa ay turam wax naa lu bari ci a munawara bi mu yegsee madina ñett moo njëkkoon a nekk ay yitteem ñetti mbir yi daanaka ci la jublu rek ba mu yegsee bu ci njëkk nag mooy tabax jàkka te tey bindu tey wi jàkka ja nañ ko tabaxee ci la ñuy waxtaane ñaareelu jëf jure ji nga xam ne def na ko ca madinatu munawara te yàlla tagg jëf jooju muy jëf joo xam ne nii ju amal solo lislaam la ju amal avantage lislaam la mooy mbokkele gi mbokkale woon gan ñi ñëw nga xam ne ñu ngi bàyyi koo màkk wàcc seen alal ñii bàyyi seeni soxna ñii bàyyi seen njaboot ñëw madinatu munawwara tumuranke lool ay nit ñu baax yu sell yoo xam ne yàlla rekk nekk seen xol ay nit ñu tabe ay nit ñu yaatu muy waa ansaar ñu fekk leen fa yonent bi mbokkale leen kon ñaareelu jëf ju rëy ji ca Madina mooy mbokkale ga mbokkale gi moom dama koy wutal bindu boppam waxtaan ci incha allahu taala ñetteelu jëf ju rëy ja nga xam ne def na ko Madinatul Munawwara moom it bindu boppam la moom lañ moom la ñuy wax al wasiqa mooy euh, wasiqa bi nga xam ne contrat bi nga xam ne da koo bindoon ak ñam fa fekk ne moom la ñuy respecté ñun ñëpp ñu tënku ci. ñu koy tuddee alwasiqa muy wasiqa bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak ña nga xam ne ñoo nekk madina ca lu ñuy jullit waxoon naa madina ñaata xeeti ngir ak yenn façon nit la fa fekkoon ci bind yi ñu weesu kon ñetti mbir yi mooy yi nga xam ne mooy nekkoon yitteem ji njëkk ba mu yegsee ca dëkkam bu tedd boobu nga xam ne fa la borom bi def dogal ñu denc ko ca dëkk boobu muy almadinatul munawara euh, madinatul munawara googu fala tabax jàkk ji nga xam ne wax nañ ne mooy ñaareelu jàkk ji gën ci kaw suuf ginnaaw kaaba ga ca màkk googu dana fa dellusiwaat ba defaat fa jaloore ci kanam danañ ci wax incha allah ca bindee ca kanam kon bi mu ñëwee rek am na benn pàkk boo xam ne daa dend ak kër gi muy pàkk bu yaatu boo xam ne ci cosaan pàkk boobu dañ fa daa weer tàndarma am ci côté boo xam ne nii ay armeel yu ràpp yu yàgg di armeel yi yéefar ñoo ci nekkoon moom la woon am ci foo xam ne su ma doon la wax pour mu gën a leer dama naan la ak mbooy ndax ay ëkki garab ñoo fa nekkoon ak ñax mu bari lépp ci pàkk boobu noonu bi mu yegsee ci la joxe ndigal ne fii mooy nekk euh, jàkka ji incha allah daal di laaj cosaanal suuf si ku ko moom ñu ne ko suuf si day ñaari jirim yoo xam ne ci waa ansaar lañ bokk ñoo moom pàkk bi ñu koy wax Sahl ak Suhayl te loolu rek tur yi rek li ñuy firi rek day wane li yonent bi bëgg li tur yi firi mooy yomb lu yomb day wane ne kon loolu dana ko yomb bi ñu woowee jirim yooyu ñu ñëw jirim yi ne ko yow yonent yàlla bi pàkk yi de ñun ñoo ko moom da nga cee bëgg a def néegu bi yàlla jox nañ la ko àddiya yonent bi ne déedéet dañ xool li nga xam ne moom la pàkk bi yellool ci ndàmpaay wala ci jënd ko ñu jox leen ko ñu daal di xayma la nga xam ne moom la pàkk bi war a tollool ñu jox ko ñaari yatiim yooyu nga xam ne mooy Sahl ak Suhayl loolu nag ay riwaayaat yu bari wadd na ci ci limub dinaar ba nga xam ne moom la jëndee barab boobu waaye li am solo mooy ñaari jirim yooyu ñoo ko moomoon tey ci cosaanu pàkk bi mooy ab pàkk la woon boo xam ne rek eh, ay jirim ñoo ko moomoon pàkk la woon boo xam ne dañ fa daa weer tàndarma pàkk la woon boo xam ne it ay armée li cosaan yoo xam ne ay mushrikuuna ay yéefar lañ ca dencoon geneen wet ga nekk yoo xam ne ni ay ëkk ak ay garab ak ñax mu bari ñoo ci nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di joxe ndigal ne nañ setal foofu ñu daal di setal pàkk ba ba mu set armée lee ñu maasale ko defar ko ba mu set dindi mboolem loo xam ne nii rek lu fa nekkoon loo xam ne day xatal ñu dindi ko foofu ca pàkk boobu nga xam ne moom lañu war a def jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa nag daa di joxe ndigal ñu defar fa jàkka ja jàkka jooju bañ ko tàmbalee di fondement wax nañ ni moom yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa ci biir saxaaba yi la nekkoon ansaar ak muhaajiruuna yëpp àndandoo booloondoo nekk benn kenn xàmmewut ki kilifa ak kudut kilifa sallallahu alayhi wa sallam seen biir bokk ci ñay yor mool ya ñay yenn suuf sax ñay tibb ak ñay gas ba waa ansaar sax dañoo mujjoon ñëw ci moom ne ko daal <laughs> yow yonent yàlla bi te ngaa toog te bàyyi ñëw liggéey bi waaye yonent bi nanguwut loolu loolu liñ fiy jàngate mooy lu baax moom jombut kenn lépp loo xam ni lu baax la lu ñuy def di su ko jagleel ne ñee ñoo ko war a def wàcc na ñee loolu la yonent bi jàngale kon yonent bi ba ñuy sos jàkkay madinatu munawwara kenn ëpp ko ca pastéef kenn gën ko caa sonn salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi nga xamee ne fondement nañ jàkk ji ba gas ko tabax ko tabax bu dëgër yëkkati ko ba miir wi yëkkati ko mu nekk loo xam ne ni murabba la biñ ko yëkkatee ba noppi dañ faa def ay keno yoo xam ne nii tàndarma la garab yi tàndarma ay keno yoo xam ne garab yi tàndarma la keno yooyu biñ ko defee keno yooyu biñ ko defee ba jàkk ji wër eh, ca cosaan jàkk ji ñetti bunt la amoon jàkk yonent bi sallallahu alayhi bunt boo xam ne dafa mel ne fi jant bi soow ak foo xam ne fi jant bi Eh, fenke ak fi muy soo ak beneen bunt boo xam ne ca beneen côté ba la beneen côté ba nag ci lañuy jublu jàkka ji ca ca saa baytul maqdis lañ doon jublu jàkka ji ca cosaan amutoonu minbar jàkka ji ca cosaan amutoon mexraab li ñuy tuddee mexraab muy loolu nga xam ne day xaw mel ne lu ron imam bi dugg ci biir minbar bi dafa dabaatal ci biir la am da ci waxtaan yi ca kanam incha allahu taala danañ tudd cosaanul minbar bi ak yeesalaat ga kon bi nga xamee ne tabax bi wër na ci waxin ba miir bi wër na bañ génne bunt yi ba mu génn génn wet gi nag ci lañ lal maanaam cari tàndarma yi pour mu mën a am keral ñu boole kook tabaxu ban bi ba nga xam ne kuule koog tabaxu ban ba nga xam ne genn wet gi moom fi ñuy jullee man sa faa jullee ca naaj du dal maanaam aw naaj du leen sonal kon loolu la njëkk a def ca wet ga ca ginnaaw nga xam ne nag sore naag fi ñuy jullee ñu defar fa mbaar moo xam ne nii euh, fuqaraa yi ak masaakiin yi ñoom ñoo fay dalloo ñi nga xam ne amuñuy kër amuñu fuñ nekk waaye jàkk yonent bi sallallahu alayhi ci cosaan biñ ko defaree jàkka ji nekkutoon barab boo xam ne dañuy julli rek buñ jullee tëj buñ julli bu ñu julli tijji buñ jullee ba noppi tëj déedéet jàkka ji dafa nekkoon foo xam ne lépp lu ñuy lijjanti ci mbiru julli di fa lañ ko doon defe fala la yonent bi doon dajee fala doon jubóole nit ñi fa la doon mbokkalee nit ñi fa doon jàngalee falañ lañ doon jullee fa lañ doon defee lépp loo xam ne ni day yéwénal diggante julli di rek ci jàkka ja lañ ko doon defee loolu liñ ci mën a jàngate mooy jàkka yi moom bañ a nekk barab yoo xam ne nii dañuy julli buñ jullee ba noppi tëj jàkka ci cosaan war naa am ab jànguwaay boo xam ne dañ fay jàngale jàkka ji cosaan war naa nekk barab boo xam ne nii dañ fay yéwénale mbiru jullit yi te lépp di dem ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara yi àdduna ñu bañ ko caa dugal nekk loo xam ne nii lu ñuy warmaal lay doon ndax mooy néegu bi yàlla kon jàkka yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci cosaan nii la woon wax naa la léegi ne la bi jàkka ji yeggee mexraab bi juttu naa mexraab bi dañoo wuute kañ la tàmbali ñii da nga naan ci jamono Seydina Ousmane la am na ci riwaayaat yu wax naan ci jamono Omar ibn Abdul Aziz la ila axirihi waaye daan ala kulli xaalin ci jamono yonent bi loolu ñuy tudde mexraab moom amutoon euh, minbar it amutoon ci keno yi rek la daa wéeru buy wax taxaw wax bi mu ba nga xam ne jàkk ji muy commencé mbooloo mi di bari ci lañ soog a defar benn ëkk goo xam ne ci lay taxaw ëkk googu yi nañ ko yeesale yooyu yëpp dana ñëw ca kanam waaye dañuy def mbind bi fuñ ci toll rek dañuy bañ a yàkkamti la ca kanam ñu wax fiñ tollool jàkk ji nag mujjoon nañ ko yaatalaat yaatalaat gi étape bu yaatalaat gi ëgg ci woon ndax ci ginnaaw Euh, fatu xaybar lañ yaatalaat jàkka ji am na ñu naan ci riwaayaat yi sax euh, pàkk biñ ko yaatalaat Sidna Ousmane moo ko jënd joxe ko addiya radiyallahu taala anhu ala kulli xaalin daal nii la meloon ci cosaan bi jàkka ji yeggee euh, ju commencé nag di defar néeg yi ñu tuddee xujuraatu nabi mooy soxna yonent bi seen néeg dafa taqaloog jàkka ji xujura yaakaar naa xujuraat am na saar woo xam ne noonu lañ ko tudde ndax alxuraan da doon wàcc ci barab yooyu noonu xujura bi njëkk na nga xam ne mook jàkka ji ñoo taqaloo te waxoon naa kooku ne bala may wax ci moom damay ñëw di waxtaan ba agsi ci moom taxaw ci moom na ma taxee woon ci say sayyidatuna Xadija xujura bi njëkk nag mooy xujurab euh, soxna su tedd soosu nga xam ne yonent bi waxoon na ne genn wàllu diine yépp mi ngi ci soxna soosu nga xam ni kër gëm dëkk ak famille bi mu bokk ñoom ñëpp ay jullit lañ di ndaw loo xam ne nii ku bari xam-xam la ku ragal yàlla di koo xam ne yaayam jullit la baayam jullit la maamam jullit la ay frèram yépp tuub nañ ay sëram tuub nañ di ko yàlla gërëm di ko yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm kooku faawuma taxaw ci moom waaye danaa dikkaat ci moom ana kooku mooy kan kooku mooy as-siddiqa bintu siddiq saxaabiya bintu saxaabi ummul muminina sayidatuna aïcha radiallahu taala anha ab xujuraam moo jiitu dëgg la fasuk soxna Aïcha ci mujjantalu Màkka la woon ci mujjantalu maanaam ci ci ci ci ci fan yu mujj yi ca Màkkatal Mukarrama wala ca weer yu mujj yi ca Màkkatal Mukarrama ci la fas gi amoon fas gi nag wax yu bari am na ci ci ñaata at la soxna si tolloon waaye ala kulli xaalin mooy ki nga xam ne yonent bi jox nañ ko ko soxna te musta am boroom kër mooy ki nga xam ne it ginnaaw soxna Khadija lañ ko ko jox Khadija fekkantewu fa kenn ci soxna yi ngay dégg ci soxna yonent bi koo ci dégg rek ginnaaw naa Khadija lañ ko fas waaye nag dafa amaat ci riwaayaat yi ñu ne ginnaaw Khadija mu baasaratan sayyidatuna Aïcha la fas waaye li gën a siiw ci riwaayaat yi mooy soxna Sawda bintu bintu Mazaim bintu sama boobu soxna Sawda bintu Samaa mooy ki nga xam ne mooy ñaareelu soxna si soxna Sawda danaa ñëw ci moom waaye dama koy toppandoo comme xujuraat yi ni mu demee comme xujurab sayyidatuna Aïcha moo jiitu tafu ci jàkka ji ci Aïcha laay wax su ma noppee lu euh, ñàkk ma leeral ci bind yi di ñëw lu jëm ci soxna Sawda ba nga xam ne soxna yonent bi kenn ku ci nekk étape ba nga xam ne sa mbir fa la feeñe ñu wax ci yow riwaayaat yi nee nañ bi muy am juróom-ñaari at ñoom nag bi ñu am juróom-ñaari at booba xel mi mat na jëmm ji mat na mboolem luy tax daal ñu ne kii marees na ko maye jamono jooju loolu am na ci waaye bi mu ñëwee Madinatu Munawwara ba juróom-ñaari at yi teg ay at yu bari ci lañ ko jébbal jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di dugg ci néegam mooy xojura boobu nga xam ne man dama koy faral di tudde sax daara ji njëkk ci daara yi ndax soxna Aysa daara la ko defoon ndax nit ñi dañ daa bàyyi koo fu ne ñëw di ko laaj yonent bi moo waxoon ne am na laaj yoo xam ne manees naa dem ci soxna Aysa xusoo nis fa diina ko man hasil omayra mu nekk soxna soo xam ne juróom ëpp luñ solo yu xadis di ay saxaaba di ay góor kese soxna Aysa moo leen jigéenal bokk ca juróom-ñaar yooyu kon soxna Aysa am na ci riwaayaat yi ci kutubu sitta boo demee nee nañ yonent bi wan nañ ko soxna Aysa ci gént ne ko haasihi sawjatu ko fi dunya wa fi wa fi laaxira am riwaaya boo xam ne lu mel nii la wax waaye arab yi baat yi alfaas yi xaw naa wuute mooy dañ ko wan image bi ne ko kii mooy sa soxna ci àdduna ak àllaaxira nee nañ gént ne ko ñaari yoon ba ca ñetteel bi nag ca xew-xew ak dox gi ak amal gi am ba bañ dénk ko soxna soxna Aysa mu nekkoon jëmm joo xam ne jëmm ju tuuti la woon ju amoon fasaaxa baat bi dëgër lool mu am ful la jeex tàkk ci yàlla nag jeex tàkk ci yàlla yàlla mayoon ko ak mën a mokkal yàlla mayoon ko dëggu yàlla mayoon ko cofeel gu wér gu mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla mayoon ko mooy ku teel a làq ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bu fi yonent bi jógee fukki at juróom-ñett rek la amoon moom soxna Aysa waaye noonu mu baaxe woon fi yonent bi jógee mbaax ga daa yokk moom sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha kon soxna Aïcha mii nga xam ne alxuraan wàcc na ci moom lu bari ayatul ifk suñ waxtaanee ba toll ci rek danañ ci wax jëmm ju tedd ju baax jii nii nga xam ne ci askan bu baax la bokk abu bakar abu bakarin as-siddiq mooy baayam soxna su tedd soo xam ne ni ku teel a dugg ci lislaam la muy Umu Ruumaan mooy yaayam moom soxna Aïcha mu bokk ak moom Aïcha ñoom Asma bokk ak ñoom Abdourahman ak Abdullahi ak Muhammad ibnu Abi Bakrin ñoom ñi ñëpp di Alu Bakrin ñu tuub Abdullahi ibnu Qaafa mi waajuru Seydina Abu Bakr di seen maam ñoom ñëpp ñu bokk ci kër googu nga xam ne mooy kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhu kon soxna Aïcha ci lañ ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi jàkka ji yeggee rek dañoo daal di jublu ca xujurab soxna Aysa moom soxna Aysa radiyallahu taala anha ñu jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo muy koo xam ne nag mënee suta wax ci étape madinatu munawara ca doo ko tudd dana ci feeñ ci lu bare bare bare bare bare bare moom soxna su tedd sii nii dana ci feeñ ci gazawaat yi dana ci feeñ ci xare yi dana ci feeñ ci ahadis yi dana ci feeñ ci lu baree baree bare baree baree bare kon kenn la ci soxna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy ku bari ay ngëneel nag moom soxna Aïcha radiyallahu taala anhu amoon nag wàccuwaay bu mag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la amul njaboot ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñim njabootul ñëpp soxna si di soxna Xadija nga xam ne wax naa ci moom lu bari mooy seen waajuru jigéen kenn rek la ca jurut ci kooku soxna Maariyatul Xibtiya moo ko jur Maariya it radiyallahu taala anha su ma agsee ci étape ba nga xam ne mooy état bu bindi leetar ya ci la ko yonent bi fase woon ak mboolem ummahatul muminina yi ku ma toll ci yore dinañ ko leeral kon yii ci xew-xew yi nga xam ne yi jëkk ci état madinatu munawara la te wax naa la léegi ne la madina ñett yi moo ko soxaloon muy jàkka ji mbokkele sahaaba yi waaye bindu benn wasiqa boo xam ne ay article yoo xam ne dañ koy bind ñu signé ko ñu mën na dund ci jàmm ak ñam fa fekkaloon nga xam ne famille yam fa fekkaloon ñoom ñëpp tudd naa leen kon lii moo nekkoon li nga xam ne euh, mooy bindu tay bi ci wax naa ne la ñetti bànqaas yi bu ci nekk danañ ko wutal bindu boppam waaye ci biir bind bi it euh, soxna su tedd si feeñ na ci ndax néegam feeñ na ci muy néeg soxna Aïcha nga xam ne mooy néeg bi nga xam ne moo mujj ci jàkka ji néeg boobu nag dafa am solo moo tax ma tudd ko ndax tey jii rawda bu tedd boobu nga xam ne euh, mooy fi gën ci kaw suuf wala sax am na ci borom xam-xam naan <laughs> moo gën aras ndax yonent fa yonent bi tëdd moo gën aras am na ñuy wax lu mel noonu am na ñu naan moo gën fépp ndax fa la tëdd moom ju tedd ja fa la tëdd euh, néeg boobu noonu dafa am xew-xew yoo xam ne bi yonent bi wàcc bu liggéey Euh, sallallahu alayhi wa sallam mboolem li ngay dégg ci fanam yu mujj yi ci néeg bu tedd boobu la xewee ci néeg boobu it euh, néeg boobu it moo nekk rawda bi nga xam ne ci lañ ko denc néeg boobu ci lañ denc waajuru soxna Aïsa muy Abu Bakrin As-Siddiq néeg boobu ci lañ denc ñaareelu xalifa Seydina Omar ci sàkk goo xam ne da ko sàkk woon soxna sa ñaan ko ko mu may ko ñu denc ko ci ñaari soppe yooyu nga xam ne mooy ay soppeem ñaari ñooñu nga xam ne ñooy ay kilifaam euh, loolu it ca kanam dana feeñ incha allahu taala kon daal lii mooy niñ sosee jàkka ji kon jàkka ji ca tàmbali ba xibla bi jubluwutoon ca Kaaba ga ca baytul maqdis la jublu woon ana nuñ bàyyee baytul maqdis ñëw ca Kaaba ga loolu it ci ñaata at la doon ci màkkatal mukarrama moom it ay bind la ca kanam waaye daal jàppal ne jàkka ji tabax nañ ko ba mu yegg tabax boo xam ne miire nañ ko mu nekk jàkka ju yaatu kuule nañ ko it ci ay bànqaas ak bant yoo xam ne dafa ànd ak tabaxu ban waaye ci biir jàkka ji it suufu su ramlu maanaam suuf soo xam ne suufu su beeñ soo xam ne day mel ne suufu su désert su nooy népp moo nekk ca biir jàkka jooju doon mu am ñetti bunt ci cosaan ca tàmbali ba amutoon bar amutoon mihrab nii la jàkka ji demee woon mu nekk miir boo xam ne ni miiru ban la ci biir it ba tey nan la nodd dikkee ca bind ba la ñu jëm ci lay feeñ nan la nodd gi tàmbali ñëw ba ñuy nodd moom it la tàmbali kon ca tàmbali ba daanaka lu jëm ci wàllu nodd amutoon waaye bañ jëmee ba ci fan yu njëkk yi rek wala ca tàmbali njëlbeenug madinatu munawara ci a war a ci la nodd feeñ nag ñu commencé di nodd nan la dikkee ci yenn anam incha allahu taala loolu ca bindee ca kanam lay feeñ waaye daal nii la yonent bi euh, joxe ndigal ñu tabaxee ko jàkka ji nii lañ defaree xujurab soxna Aysa mu daal di yegg si biir waaye nii lañ defaree xujurab soxna Sawda nga xam ne jàkka ji ca cosaan ñaari néeg rek moo taqaloog jàkka ji muy néegub soxna Sawda mi nga xam ne ginnaaw Xadija moom lañ moom la yonent bi fas ci li gën a siiw waaye damaa jiital soxna Aysa ngir ne xujuraam moo gën a jege ci jàkka ji ak wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci diine yàlla na yàlla dolli ngërëm ak xéewal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ca dolli ñu ak cofeel ci moom ca ñu ko bu baax a baax a baax ñoo ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi doon topp ci MKTV euh, ci jàppandalu Cheikh Abdoul Khadir Bousso ak ñi àndal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa